Fatime yow ya, lu yor pira pini. nii yow bakkan yàllaa ko yo. yaa ngi nii tenté nga deux fois de suite pour jël bakkanu xalé bi ta yalla àndu ci. da yalla waxul ken dara seetaan jaamam incha allah yàlla dina si def jaamu. Eh, ak man lan la bay ma. Fatou yow nar. ci la. je te pose une question C'est léegi ngir ou la commerce la wala loterie la wala la. waaw non secret. waaw non, non, que ça soit la dernière fois et puis ah, eh, nga ma une nga ma. mais ma nga poste de santé tu nga ne que tu sumaare sama je nga ma sama tension que nag ci bu qu'est-ce qui se passe. ma violé violet Comment c'est? tu Ce là il tu tu que man moo forcé au ma